wax ni tey waxtaanu tey bi jëmul fenn lu dul ci biiru élection yi nga xam ne ni muy date bi te boobaat léegi ñu tudd ko élection locale muy commune yeeg yi nguur Macky Sall nekk di ko reporté tey ñu ngi si ñetti yoon ñu bëgg a wax ni rek euh, force démocratique yi nga xam ne nii ñoo nekk si opposition d'accord ñu benn yoon ñu yóbbu élection yi euh, deux mille dañuy wax ni bu fekkee ni démb d'accord nañ ci dialogue politique bi ñu reporter élection yi yóbbu ko premier décembre yóbbu ko plus tard vingt deux mars parce que doon doon waxtaan pour maanaam auditer fichier bi ak évaluation bi te ñu jublu ci ba d'accord ci ñu am temps bu baree bare pour def ko. yàlla def pandémie bi ñëw feebar bi ñëw mbas bi ñëw tax doxin bi yéex yéex na ba tey jii ñuy wax ni élection yi est-ce que mën naa nekk deux mille vingt un wala deux mille vingt deux ñuy wax opinion nationale bi ak internationale bi tey bu ñu tolloo si wax élection yi dañ koy def deux mille vingt deux pouvoir bi di ko wax nekkul responsabilité kenn ku pouvoir. ndax opposition ñun lu nu waroon mën maye maye nan ko maanaam du ñu war auditer du ñu war évaluer ñu ni nanu dàq élection yi premier décembre pour mu dem 28 mars au plus ñu wax nii ah bu fekkoon ni gannaaw pandémie bi li mu waroon doxale doxale doxe na ko kon du ñu toll fii su loolu ñu bëggoon rek wax lu tax ñu wax loolu ndax xam nga bi mbas bi ñëwee euh, mars la woon mais fekk na avant mars mois de février deux mille vingt si 6 février li taxoon ñu war def audit beeg fichier bi ñu tudd tubaab tudde ko terme de référence bind nañ ko ba jébbal ko président de la république 6 février mbas ma ñu ngi tëj maanaam mbas bi mi ngi dugg mois de mars ñu tëj. ñu arrêté dialogue bi 19 19 mars ñu toog juróomi weer ñu nangul ko gouvernement bi mais reprendre nañu dialogue bi depuis le 19 août 2020 te bi ñu ko reprendre président de la république su boppam moom moo laajoon ni nan ko defal rapport dialogue bi si rapport boobu nga xam ne ni ñi feu général Niang ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana woyofal suuf si koyam moom dafa waxoon président ah maa ngi lay dox rapport bi kat waaye xamal ni évaluation bi processus électoral bi ak audit bi dafa am importance te dafa am dayoo si date bi nga xam ne nii wala ñuy fixer élection yi comme boobaak léegi doxuñu dox bu gaaw commission politique bi ñu ngi lay wax ni la il faut que point yooyu nga dox dox bu gaaw pour ñu defar vingt six août mais mu wax ko ni ko dama lay fàttali sax yónnee na woon la lettre 6 février 2020 pour wax ni pare nañu pour nga tàmbali loolu donc defuñu ko defuñu ko duñu toog ba janvier 2021 ñu doog a recruter auditeurs yi ak évaluateurs kon tey jii bu fekkee am na koo xam ne ni dafa yéexal maanaam mbir mi pour ñu bañ dem élection nekkal kenn ku dul régime Macky Sall mais ñu ni ñun bi ñu ko xoolee ba si biir même bu fekkee ni même bu fekkee ni pandémie ñëw na ñoom daagu nañu dawuñu doxuñu ñu ni ba tey boo xoolee diggante bii ñu nekk ñu nekk avril décembre mën nañ faa organiser élection locale yi xëy na sax question wu date élection question politique la mais dañ leen ko bëgg rek wax ne ni opposition lépp lu muy wax mën na see teg baaraamam maanaam mën nañu jënd li ñuy wax technique ñeenti maanaam étape moo am tey jii avant ñu dem élection bu si njëkk bi mooy évaluation processus tàmbali na le 2 le 2 avril ñu gis ni lu mu bon bu ñu gëstoo li nga xam ne nii moom mooy li évaluateurs yi proposé pour wax ni ni ñi nar a defee seen liggéey ak temps bi nga xam ne nii moom la war a jël ñun gis nañ ni ñaari weer doy na si sët mu des beneen ban xam nga boo defee audit def évaluation boobaak léegi ñu ngi doon waxtaan si dialogue politique bi am na ay accords yoo xam ne nii dafa war changer code électoral bi ak code des collectivités territoriales ñu ni ñaata diir moo baax ñu ni comme boobaak léegi ñu ngi doon waxtaan te am na ay accord te administration bi dès que mu am accord moom dafay commencer liggéey si code électoral code collectivité territoriale benn weer doy na pour ñu def revue code électoral boobu ak code des collectivités locales donc ñaari weer plus benn weer mu nekk ñett mu des ñaari étapes yi ñetteel bi mooy euh, révision exceptionnelle nga xam ne nii danu war ubbiwaat liste yi pour que xale yi nga xam ne ni am na nañu at pour voter ñu mën a bindu nit ñi nga xam ne ni danoo faatu ñu war leen dindi si liste yi nit ñi nga xam ne ni danoo changer adresse nit ñi nga xam ne ni ay militaire wante woon te nekkatuñ simi simi nañu ñooñu ñëpp ñu war leen dellu defaraat maanaam si liste électorale yi administration si boppam ni ñaari weer doy na si kon mu des ñeenteelu étape bi muy dépôt des listes kooku nag loi moom moo wax ni diggante quatre-vingt ba quatre-vingt-cinq jours kon kay bu amee ñaari weer am benn weer muy ñetti weer am ñaari weer muy juróomi weer ñeenteelu étape yi même boo jëlee ñetti weer bu nekk juróom-ñettee juróom-ñetti weer tey jii juróom-ñetti weer bu ñu ko dee def bu ñu fekkee ni moom moo war pour ñu dem élection dafa doy sëkk sëkk sëkk pour ñu mën def élection yi. deux mille décembre deux mille vingt et un loolu nag gis nañ ni tey jii société civile non alignée ñëpp d'accord nañu ak opposition wax ko ay yoon yu yoon sukkandiku si ay li nga xam ne ni moom la ñu dund démb ak bërki démb si wàllu élection si Sénégal pour wane ni effectivement élection yi mën nañ ko euh, def décembre deux mille vingt et pouvoir bi rek moo bañ deux vingt deux te ñun comprendre ñu. génnewul benn argument technique pour wane lu tax mënuñoo def élection yi 2021 loolu nag ñun duñ si d'accord ndax kat élection yi dañ ko dàq dàqaat ko muy ñetti yoon tey jii 2021 gouvernement bi voté na loi voté na maanaam xaalis bi nu war a defee élection 2021 techniquement mën na nekk kon kay lu ko lu ko tere ndax dañu bañ ñu jóg si 2021 di dugg 2022 mu amati encore lay ak pexe pour wax ni élection législative dañ koy toxal wala leneen dañu wax ni affaire élection locale daal moo taxoon ñu dàq dàqaat parce que audit ak évaluation na mu yam si deux mille vingt et un pour organiser élection locale yi te bàyyi yeneen élection yi législative élection présidentielle ñu respecter calendrier euh, électoral ñun nag xool nañ ko xoolaat ko administration dellu na wax ñaar fukki fan yu mu si yokk mais ñun dañ ne ñaar fukki fan yooyu même bu ko si yokkee si ñetteel bi nga xam ne ni mooy revue du du maanaam euh, révision exceptionnelle ba tey dafay nekk euh, juróom-ñetti weer ak fukki fan ak ndax xam nga fële dañu waxoon ni bu mujj bi ñetti weer mais dañ ni quatre-vingt-cinq quatre-vingts à quatre cinq jours donc mën nañ fa am juróomi fan juróomi fan yooyu boo ko dindee si ñaar fan fukki fan ak juróom lay nekk donc day nekk juróom-ñetti weer ak fukki fan ak juróom même bu ñu teniree compte si li nga xam ne nii moom la administration wax te bu boobaa comme ni ko si civile waxee élection yi mën nañ koo def le 19 décembre 2021 loolu nag opposition moom la wax te fas yéenuñu si dellu gannaaw xam nga si jamono bële démb ba ba sa jamono bële opposition bu mu gisee ni ñi ngi commencé indi njuuñ njaaj dafa wax ni kii daal gouvernement bi Macky Sall comme buñ dee waxanteeg moom moom du d'accord jamais dafay wax ak ñun tey mu def la lay ëllëg ñu ni suspendre nañu suñu participation ci dialogue politique nan ko bàyyi mu def lu ko neex ñun tam ñu seet lu nu lu nu mën ñu def bi nu ko defee ah mu ni février deux mille dix euh, vingt deux la waxoon mu ñëw ni janvier deux mille vingt deux ba noppi ubbeeku na pour que ci dialogue politique bi ñu proposé ko daal ñu ne ay la yowoon kaay leen ndax ñun jàmm rek lu ñu bëgg dañoo bëgg élection yu maanaam coowu élection jóg fi ñu fixé datu élection yi suñu réew nekk si jàmm nekk si liggéey ñu organiser élection yi deux mille vingt et un ku mën a gañe ku lu foo mën a gañee nga gañe fa ah gis na ni nag moom bu mu ubbeekoo ay ndawam yi nga xam ne nii ñoo nekk si jaru politique bi nekkuñu si tànk yooyu ñu ngi continuer di wax ni élection yi janvier deux mille vingt loolu nag du ñu bëggoon xamal opinion nationale opinion internationale que opposition bi yëpp yëpp yëpp front de résistance M2D euh, coalition Jotna CRD ñëpp société civile lanceur d'alerte ñëpp d'accord nañ ni loolu duñ ko bàyyi te incha allah danañu taxaw pour que Macky Sall organise yi en euh, décembre deux mille deux mille vingt loolu nag. loolu doon tënk loolu nu tënk si si si tubaab di wax ni loolu moo wax léegi muy unité de l'opposition front bi nee na def na ci ay jéego yu yu yu yu réere te si ay fan yu néew daanu àggale yéene boobu taxawal benn mécanisme bu nga xam ne ni cadre d'unité d'action de l'opposition la nga xam ne ni moom sax moom mooy porter ce combat pour si biir Ndakaaru si biir Sénégal si bitim réew pour que effectivement le régime de Macky Sall mën a organiser élection yi 2021 ñu jàll sa leneen